nuyu naa leen nuyu naa leen nuyu naa leen nuyu naa leen ku dugg na nga partagé bu may def nii mooy partagé leen parce que lii rek lañu am comme armement partagé leen maire yi mën nañ ko paa yi mën nañ ko gone yi mën ko xale yi jigéen yi mën nañ ko def partagé leen partagé leen partagé leen nijaay yu jigéen yi partagé leen bàjjen yu góor yi partagé leen partagé leen partagé leen voilà nuyu naa leen TikTok may leen ma ñëw ma nuyu gor ñi ba pare waa Facebook ak YouTube ñooñ ñooy gor yi gis nga bañ naa ko ba mbaam ma jàpp fii dama koy sànni mu ñëw TikTok foofu laay defee recyclage gor ñi na ngeen nuyu na ngeen def nuyu naa leen waa surtout mbelelaan yi na ngeen def maison des esclaves royaume du Mbroog Sow empire des Cog république des Dunguru république des lesbiennes république des bisexuels quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans nuyu naa leen waa hôtel yeeg hôtel yi maa ngi leen di nuyu na def ziar naa leen bon woote bi démb ak tey bari na woote bi démb ak tey bari na foofu laa njëkk tàmbale nag tëj loolu que gis ngeen li ma affiché stratégie pour le 2, le 2, stratèse pour le 2, pour le 2, gatsa gatsa, gatsa gatsa. wax nañ ko du nek luñuy wax diko ça? Luñuy wax taxaw la ku ñu ñu taxaw yow continuer suñu est-ce que ngeen doon ñu bari wo. expliquer oui c'est-à-dire il faut que nous comprendre mën nous suñu bir, nous il faut ñuy def ham il faut xam nga yéen xam nga yéen yéen dama yaakaar ne da ngeen di nitu ta feñagu len nitu xam nga nga yor sa tors di nit sa sabop, pour gis sa bopp te gisagoo sa bop wala nga tim setu di xol ta gisoo sa bop parce que yéen bu ngeen comprendre xam ne ñun réew mi ñun ñëpp ay sénégal lañ ay mbokk lañ yoo xam ne ñun ñëpp a jegeyante réew mi mu toll nii tey xam nga lu ko fi dëj baalante ak comprendre nañ bàyyi noonu dañu toll ci époque bii nii man képp kuy toog naan diw nañ ko baal nañ def nii nañ def nële nañ xoole nële gis nga looy jël ci nit intérêt la war a doon pour combat bii pour pacte bi pacte de la réalité pacte de la réalité pacte dëgg yoonu alxaq muy dëgg ku ci tooñ wala ngay wax te xamaguñ foo féete ñu jël lu arrangé suñu wax suñu sa kàddu lu lu ñu arrangé ñu jël ñambaas dàq mu dem waaye dama yaakaar ne yéen kuy wax naan way ku tooñ na la baal nangam nangam comprendre leen ba léegi li ngeen di xeex lan la il faut savoir sanctionner dañoo am ay nit teg leen fi te duñu sanctionner kenn ñu jóg nag ne dañuy ñëw pour laaj kon ñun suñu bopp ñooy commencé jàng sanctionner avant ñuy yegg fañ jëm suñu deggul ci sanction bobu li nga xamne mom moom lañ woote yàlla du ñu fa ñu jëm parce que xamnañ ne buñ ñëwé tamit pare la def parce que yeen ñi naan bal leen ko nangam ci ñun la bok xana da ngeen faté ne yeen ak Macky Sall yeen a bokkon même objectif di xex Abdoulaye Wade du deug xaar leen ma xëc li ngeen may gis may wax ak yeen ngeen dima xol est ce yeen est ce na est ce que li may wax leer na est ce na parce que man bëgguma dugg ci ron lal di wax ak yeen man dama bëgg taxaw fu ne weng ngeen may xool ma di leen xool may wax ak yéen ndax su ngeen ma gisul li may wax ngeen koy dégg su ngeen déggul li wax ngeen di ma gis <coughs> Macky Sall dafa àndoon ak yéen di xeex ak yéen benn cause bu noble bu ngeen jàppee ne dafa noble ñun ñëpp ñu jàppoon ne dafa noble man wóoluma ko ngeen wóolu ko fal ko mu ñëw wor li ngeen waxoon yépp ñëw di leen tooñ waaye yéen mënu leen a baal Macky Sall ngeen ànd ak koo xam ne waxal lu baax ci yéen xëy suba songu leen ba pare ngeen ne nañ ko dedet damay sanctionné man salum tampi dama koy sanctionné ba mu saf bu keneen ñewé bu luga tampi ñewé def ma dalat ci kawam nga paru tampi ñew def ma dalat ci kawam yeen ba legi xamulen li ngeen di xex lan la loolu nak du laay bu bi mais damay tontu parce que si ak legi damay liggéey ñi ma hmm uh-huh, hmm uh-huh, uh-huh, jaajëf rafet na way ñoo far nangam nangam lay wax parce que mënuma wax ak mënuma tontu damay def buma talé ma wax ki naroon a wax jot ci pour xam pour ma wax len lu gëna yomb rek gis nga ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ Sénégal benn famille bo xëc ñoddi mën na la brancher Sénégal ba mu daj benn famille bo xëc ñoddi mën na la brancher famille ba mu daj tay bu ngeen di wax ci seen mam yi rek lay déparé luma dem fenn Serigne Touba nu mu sant tay boko ko ay wolof ngi ci biir ay séeréer nga ci biir ay joolaa nga ci biir ay mankaañ ngi biir ñëpp ngi ci biir alaaji malik nu mu sant ñëpp ngi ci biir olof yi sax ñoo leen gën a moom que keneen que làkkat yi ko moom ñun ñu nekk ay mbokk li ñuy defante ci réew mi yépp xale ñu rey ci réew mi yépp jàmbur rayu leen ay mbokk ñoo leen rey ay mbokk ñoo leen rey dëpp kees gi ay mbokk ñoo fi dëpp kees japp ñi diñu door ay mbokk ñoo ñu japp diñu door nang suñuy téré ay mbokk ñoo ñu japp di nang suñuy téré ki ngay andal tay tay tay ki nga andal tay moy xey suba nang sa téré ki nga andal tay moy xey suba ñu duggal ko ci bureau yi mu signé contrat bo xamné yeen ñep da ngeen ci and torox ñu tollu ci moment bo xamné ña nekk ci bureau yi tay ñoo nekkon ci mbedd mi tay ñi nekk ci mbedd mi mënu leen tirer raison ci ñi ngeen nekkaloon démb ci mbedd mi ñoo nekkaat ci bureau yi tey di leen toroxal nekk ci gendarmerie di leen toroxal nekk ci police yi di leen toroxal nekk ci armée bi di nekk ci institution yi di leen toroxal ñooñu ci mbedd mi lañ nekkoon bu ngeen commencé wul sanctionné ci mbedd mi ba ñu xam qu'est-ce que c'est le mot sanctionné bes bu ñu duggee ci bureau yi xoolal dañu naan sénégalais loo leen def lu ne weng boo retourné ne ñu bal la ma wax leen nag man kuy man cousin mbokk ak xan sës ci man li mës naa ko wax bi mooy deuxième fois pour ma wax ko pour que ku fi jóge nga comprendre ma ànd nañ mu triande ay nit ba ñu xam ne la ba mu demee ba daanu ñëpp fob bi ko teg na le ma andi sama wet xam nga lu tax parce que dama gis ne gàllankoor bu ne leçon la pour jambi ku mu mën a nekk nag soo amee gàllankoor rek leçon la pour yow pour nga jàng bu sam xel na am il faut que mu am ko la jege parce que nit nitay garabam bo deugere bop nak ñu sanctioner la ba ko ñep dawee dama ko jégué bu mané waw waaw nanga nanga ma ko non li la ak li rek bu la bu ñëwaatee do défé ni ak ni ni ngay défé nii la ma xam ci lu baax yépp ma yedd ko ba ma mu ne doñet mbokk bu ma seus rek nak la lay wax limay wax ni nga par dañ ko dégg xam nañ limay wax ba mu ba jék gisatuma ko dama dégg rek ñu naan ma ci mi sa auto bu la jënd hmm. Hmm nang koy gis mu may romb di dem di ñew ñu ngi daje duma ko sax gar arrêté mu ngi dem ñuy dem may dox samay tank di ma romb vif vif vif vif ba xëy suba ne jamet sama kanam wa sa waay temps ma ngi wara ñew ñu gisé naa nga da dama ma ko jot yalla bu jot am lu rek dina bax ba mu ñewé ja andi ci sànci dañoo bind tek première trans deuxième trans troisième trans pour ma wax len bok limay wax ni lu may dund laay teg ci kaw taabal ji moom laay jàkkaarloo ak yéen te ale bâche ndax yéen ak may dégg ku dégg naar nag ma waxee na waxee ndax yaa yéen ak may dégg ku dégg naar na ma ko bindal na ma bindal na ñuy waxe ci naar ndax yéen ak may dégg xaaral ma moolu leen sax mooluwuma leen sax tey ndax yàkkamti leen doomu dëmm yi nooxóor bii moom doomu ci mburu mbaam yee ko moom ndax dem legi fi la des dessatul fen tiktok la Wala, voilà ba mu ñëwee ñu wax ba paré tek première tranche deuxième tranche troisième tranche joxel avance première tranche temps deuxième tranche nga joxe temps troisième tranche nga joxe temps ak paré nañ ñu song mu joxe première tranche pour man lama ko yeddon yépp dugg na ci bop bi ñu tambali liggéey liggéey ba sot première pare mu war ñëw deuxième trans ñëwul ma jël sama alal def pour deuxième tranche xam naa ne am na fu ñuy daje départ la te dafa am arrivé financé deuxième tranche ñu defaat ba troisième tranche jot mu ñëw ne ma voilà gars yi dafa war a ñëw léegi il faut ñu chargé affaire bu ma ne ko hmm. deuxième tranche joxe woo maa ko joxe troisième tranche lépp pare na léegi dem monté moo des pour troisième tranche génn mu ñal naa la deuxième tranche mu ñal ma premier jox ma confiance pour troisième tranche fay ma lépp ma doog a dem monté coow li client bi war a ñëw ma naj fi ma naj rek ma xëy suba mu andil ma plainte gendarmerie mbokk la de waaw may laaj mbokk bu ñaar ñi jàppee ne ñaar ñi ñun ñaar ay mbokk lañ dama defe ne balaa problème di am ñoom ñaar ñëpp kenn ku si nekk war a def sa bopp que ne kii sama mbokk la su ko defee coow du am sanction du am mer du am xuloo du am Wah, bu benn mbokk bi mënee def benen mbokk bi fan la ngeen fan ngeen ko nar rek balel way comprendre na nga dedet dedet dafa def retour ale bu ne dafa am retour khalatul ne mbokk lay def yow waro khalat ne mbokk la jakar lol de ngeen ba mu demé plante ma dem wuyu commandant no def ça va wa diw de def ma andil ay plante def la plante ne dang ko amel nangam ak nangam aha ah, lol la la wax mhm ma génne kayit teg si kaw table bi liggéey lañ séq yu nangam chantier nangam première trans deuxième trans, troisième trans. Dat sangam lañ joxe première trans liggéey naa ba date sangam pare naa deuxième trans, mo war a ñëw ñu song deuxième trans. première trans pare na deuxième trans lañ war a song ñëwut ma jël sama xaalis xëpp ci woo ko wax ko mu ne ma waa après bu matee rek ñu kii ma léegi pare naa troisième trans mooy dem monté mu fay ma may naa ko sensu deuxième trans ñëwut ma wóolu ba tey ñëwul troisième tranche lañ toll mooy fin bi na ma wóolu man na ma fay ma dem monter ñu jeexal ku ne dem mu ne ma déedéet du demee noonu xam nga fële toog naa fenn mooy warul fay te parewul waaye moom waruma woon a fay te songuma deuxième comprendre nga mais stratégie la commande naa ne ma naanoo da dangay dem monter affaire yi ba pare après mu fay la sax ma ne ko dee du ma dem monter ji dangay ne damay dem monter la yow yow lay livrer yow commandant yow mi ma wolu fii pour arranger ñu yow wóolu naa la mais moom wóoluwuma ko boo ma joxee autorisation ma dem monter boo ma joxul autorisation du dem monter c'est clair ñu xool feneen fu mu dem mu ne ma ok ma ne léegi ñuy def pour loolu ma ne ko nga bindal ma décharge pour won ma ne bés ni ki tey yow laay dem monter ni yaa ma jox autorisation ma dem monter su ma paree ñëw ci yow mu fay la nga woo ko mu ñëw ci yow la ñëwoon plante ma na ñëwaat ci yow fay la. nga woo ma ñëw nga fay ma koo koy leer man ma bind bindal la date bi may pare tey kañ mën naa dem tey livre tey waaye dinaa la bindal du tere tey ma bindal la ci kayit gi jour sangam laay pare bu parewul la neex nga def ma <coughs> commandant ne waaw lii dama leen koy nettali pour ngeen xam fi ma toll ci coow li fi ma toll ci pacte bii pacte Ousmane Sonko mu sell mii nga xam ne du pactam moom suñu pacte la ñun ñëpp parce que bu ñu nee pacte Ousmane Sonko ça veut dire ñun ñëpp ay Ousmane Sonko lañ buñ ko mënta nekk rek bu yaboo ñu bax ndax tey defe naa kenn gënu koo yenu ñun nag bu ñu mënta fexe ñëw li mu yenu ñun ñëpp ñu ngobbi ko yenu kenn ku ne am problème comme moom pare jixaat comme moom bu yaboo ñu bàyyi bu yaboo ñu bàyyi loolu laa leen wax nga coow loolu xam nga fu mu mujjee commandant ma dem ba ma demee dama chargé ba pare photo envoyé ko ne ko maa ngi ci yoon bi dama ko gën a dee yegg bala may wàccee ma ne taxaw leen photo envoyé ñu photo envoyé ma ne ko maa ngi ci kër gi monte ngoon nga wàcc photo envoyé commandant xëy suba monte photo envoyé commandant ngoon jot ma wér ni envoyé commandant ca ëllëg sama tëj caabi yi rocc caabi yëpp teg ci table photo bale ba mu set photo bale bi photo mbalit mi photo caabi yëg yëpp foto envoyé commandant ne ko pare na da ngay ñëw yu cité wala mu ne ma non non man kay am naa confiance woo naa ko mu ne ma pare nga ma ne ko maa ngi ñëw ma dem commandant ne ma toogal nga xaar ko nee na mi ngi ñëw ma toog xaar toog xaar toog xaar toog xaar toog xaar toog xaar ba 19 heures ma ne commandant nañu def mu ne ma suba nga ñëw ma dem mbokk de mbokku laa la mbokk pour ngeen xam mbokk mbokk cousin sës rek mbokk reer mbokk lépp bokk kër bokk julli bokk jàkk bokk fépp pour ngeen comprendre rek ñu doog a départ ngi may dégg ba ma xëyee ëllëg sa ñëwaat 9 heures 10 heures toog ka andaa ne ma fajaru nga de sama soxlal la moo tax ma fajaru toogal xaar woo naa ko ma ne ko moo ngi toog ba 11 heures midi commandant ne ma waaw woo naa ko mais dafa nekk ci nangam nangam léegi dangay dem ba ngoon ñaar moy premier avance premier trans deuxième trans ngon buma ñëwaaté moy troisième trans fa la mëna yëm ma démat ngon ma passat ñëw deux heures ma pointé ah yow trois heures la la waxon non mieux vaut prévenir que guérir damay bañ auto du am wala ma tardé ma teel a ñëw tok jaay di nga xam ne yëpp ngeen di nga xam ne saako xorom diis na wala ma ñëw tok tok commandant di ma def ni nekata ñom ñaar mi ne pat rek nga toge sak 30 minutes ma ñëw ko banda alor wa ma no xaaral mu ngi ay waa boy na xoolal dañ la ne togal nga xaar man ma wara ñew ci yow wola mais yow waro ma ko deet defal ndànk bul mer ba nga ma wolo ma ñew dama la respecté ñew meruma ma dama déplacer wu ñew ñew yi ma ñew la yep may pass yow du yaa may passal donc munu maa ñëw toog fi ta doo ma fay journée fayoo ma journée ta do ma passal ma ñibi sama xaalis lay jël si li ñu waxante woon respecté naa yow nag bul mel ni sa waa ji non booy dooma fa non yegguma foofu yëpp man dama la wax li nga xam ne dañ ko signé man ak yow xaw ma ko yow laa xam mu ne ma léegi écoute xaaral xaaral xaaral ma woo ko xaaral ma ko bala nga may dépassé nangam ma ne ko ok maa ngi lay xaar ma génn ci biti ma woo sa ma ñëwaat mu ne ma léegi daal seen problème dama ciy obligé génn ah waxaatal ma dégg dama ciy obligé génn da nga ciy génn da nga ciy nga wax de tegal ko kayit gi ci kaw table bi yow yaa ma signal yaa amel de moom amelatuma de man aw ma ak moom affaire yow ya laa amal affaire dang may tëj damb caabi ji mbaa ray rey ma dem suuli ma mu jeex un des deux mais du ma génn biiram coow li nekkul woo ay nit ñu jàpp ma noq ma ci biti boole ma ci wax ma wiiri ba ci fenêtre am taxaw woo procureur temps boobu su ma xarita procureur expliquer ko problème bi dama tudd tur bi nak du ko tuddu parce que ay dul kat ngeen ma woo ko ne ko man dal dama am problème gendarmerie ak ni ak ni fan laa war a jaaraat nangam ak nangam ak nangam expliquer lepp mu ne ma duggal ci biir nga paas mako ko ma dugg ci biir ne tel rek mu ne ma yow encore ma ne ko wuyul téléphone jël ma téléphone wuyu ma kenn waa dégg mu ne ma couper ban ban gendarmerie la ma ne ko nangam mu ne xaaral annuaire baa ngi fi taf taf téléphone bi sonné mu wuyu allo ya o monsieur là qui est derrière sama Sénégal affaire baran loola ko ko ko gëna gudd loxo rek mu wut man mom bama gëna gudd loxo mu wut won lonku kay mango buma xamé né yaama gëna gudd loxo lonku kay mango lay dem dag takante ak findi fer bu mu dëgër yotu ba jot non la rek koku ne ko problème ki dama bëgg yow du yaay atté mbir mi satu, ñëw réglé nga leen sotul tapel ma dossier bi mu dem tribunal direct amul xaar ko wanda waat yow ya, ya, ya, man ngay boole man ko yow boole guma la buma la don boole duma tok fi di wuy tele di wax telephone yow mala don doon duma wax da damay jël pass dem dakar waccat man ak er yow la mais ba tay la la sama xaliss la soxla kama soxla ya ko kan baare sama ak yow këyite dem tribunal sa way ci sasi la ko wo ne ko problème bi nak ëpp na loxo tribunal ngeen jëm mbuur suba suba amul xaar sa way jaxaso nak daw dug li mës naa leen ko wax pour ngeen xam man fi toll bu may dara dama koy ñëmé def buma ma ñemewut kenn mënuma buux ba ma def li nak du Ousmane de batin la ku ci dugg rek poser sa bop question lan mo la ci duggal bu dé gor nga la wax actuellement ni Ousmane Sonko képp ku waxul ci li muy wax ni muy goral rew bi billahi ngay borom tiaya ngay borom mbaxane ngay borom garam bubu wala ngay borom desu wala marinière wala nangam dogor. gor billahi do gor dañ la koy jiñ rek wala ñu yaakaare lako mais do gor ñëw leen li ñëpp bokk ñëpp jot waa lii bu dul yëfi gor lan mooy yëfi gor bu dul yëfi jullit lan mooy jullit lii mooy wax ji lii mooy wax ji kooku ba mu jotee kay tribunal xam ne affaire yi ëpp na loxo sama kër la daw wooye famille bi ñu daje ae fa taxaw nag paayeeg maire yi njagamaar yeeg mbandaar yu góor yi def nga fi lu kenn mësta def diggante mbokk muy dem tribunal mën ngeen yem gendarmerie bala mana doon dem gendarmerie sax day ro bala déglu len lool ngeen ma wowe déglu len affaire atelier la atelier keuyit lañ xam affaire mbokk nak problème mbokk ngeen dox ci bir mbokk li du problème mbokk problème la atelier la man su may régler sama problème atelier liggéey bi bu koy def bir atelier la ko atelier ngeen wara ñew fekk ma fa ñu wax ta du lu mbokk wara régler moom laaj leen ko ba problème ba amee yëg ngeen ko yëgu leen ko dafa dem gendarmerie plainte ma indi plainte ñëw na pour moom ko tribunal mbokk mënu ko arrangé ku dox ci diggante bi yow papa yow laay jiital booy dox ci diggante sa kaw bopp laay jaar tribunal lañ jëm boo xefee sama convoqué waala la nga ñëw nga témoigné ñoom ñëpp génn ci ñu dem tribunal ba mu xëyee socc gu toll ni taatu guy la yor di socc rek xam naa ay sëriñam ak ko digal boo jakar jàkkaarloo ak mom soccu du mëna wax muy soccu rek mën ko socc bu la nexé rocc garab taatu nim ngële demal ko buddi ko socc nga xol tax di nga rëcc sa serigne nax na la lay laay tuur na lu mu lek ci yow nga joxon mako avance mo gën ñu dugg di nga xam tax sama ci di ngoy wala ñu dugg muy comme liggéey na ma ba ma sih wax lii lañ seq maak moom waaye ba ko he ki nga jotal nii ñëw nga ak ay wax waa ay kayit la andi de yaa signé li lii sangam la pare photo yeeg yëpp a di amel nangam wah mak ko amel mais dama toll voilà nak nak pour ñu régler problème bi yéen ñaar moom rek moo la mën Lagi nak, nga ini dem léegi nag dañu da aja mu goog socc ba mat na négocier léegi danga may may samedi bii ma nangam weer bii bu dee man ma ne ko déedéet tey laa soxla sama xaalis mënuma cee teg beneen jour tey maa tëju rek ah comme noonu la demee kon jàllal porte bële kii jàllal porte bële ma génn moom dugg na porte ndungu suñ man dem na mbokk ya topp ma comme ay yemb parce que bu leen sonn fi ma matt nii tànka yàpp topp ma ma sàq ba mu jàll ci biir bi mun leen ko dindi lii ku mel nii ku mel nii di ko ne baalal diw dama leen di laaj xam nga lu ko fa jëlee compter un million six cent yu mat sëkk teg sama loxo ma compter procureur compter ma leen dugal sama poos ne leen jàngeen jëf seen liggéey jaar na yoon def sama yoon waa lii lii ku def lii après moom xelam dina dem ci muy triande keneen ti koo xam ne jox yëpp nañ la ba pare bu leen ma fonton ngeen ñëw naan ma ay Saalum Tampimos kenn du dal ci kaw bañ a dal ci kaw baaluwul laa leen wax te am naa yóbbante sax am naa yóbbante Saalum ni ngay génnee protège gaa yi papier gaa yi ñi ci feebar nga teg ci kaw table bi gaa yi yóbbante nañ ma nee nañ ma lu la teree am doom falaa yem nag kooku sa yóbbante la voilà ñu tàmbali nag. genn kàddoom képp mën naa indi jàmm ci réew mi kon nag wax ak moom jot na sëkk. te ki jité réew mi genn kàddoom képp mën naa andi jàmm ci réew mi kon nag wax ak moom jot na sëkk ci képp ku muy diglu say wax àdduna li ci biiram na na ngeen wari tiktok yéen a dàq duul na ngeen wari di ma duulal nag dama expliquer problème bi pour ñi doon woo di ma way mola ebi ki bu baax la ci équipe bi way nañ ko baal dafa def erreur dafa def naa ma ne leen xeexu leen yéen lan mooy projet bi projet bi du ko sacc ñu balla projet bi du bayyi li fi nekkon projet bi du xassante tay juba suba ngeen jubo dedet projet bi moy nañu jaar ci deug bu kenn togn sa morom lolo tax ma netali li pour ma xamne ne ci xarit luma way waay jege jege luma la mën partager partager xaar ma de na nga dëkk ci jub rek bo jubul de danaa dal de sama gemmi mako mom wala lolo, tax ma tek lolo ma wax lolo pour mu leer ñu tambali gat sa gat sa lañ jëm de te ki jité réew mi genn kàddoom képp mën naa andi jàmm ci réew mi kon nag wax ak moom jot na sëkk ci képp ku muy diglu say wax yilif àdduna ak li ci biiram nag jëlul benn bakkan bu faatu rawatina dib julit buur nag bari na lu muy dugg ñaka war ñoo ko ci dugal waaye yow buur bàyyil xel te fàttaliku bu baax démb ba nga soxlaa lii nga yore tey te mënoo ci woon a jot ña jógoon jàppale la ba nga jot ci ñooñu ñooy waa réew mi kon na nga leen diglu tey ndax réew mi teral na la teraanga joo xam ne mënoo koo fay te réew mi mooy waa réew mi da fàttali ko ba ñu la bëggee fitnaal démb ñépp a jógoon jàppale la dox sa digganteeg ña la naroon fitnaal kon tey bu nangu fitna di wàcc ci kaw ña doxoon sa digganteeg fitna yi démb kon ña la doon jàppale démb suñu wëlbati ko bu ko jàmmaarloog yow tey seetaatal sa bopp te seetaat bu baax ñi la wër fàttaliku démb xalaat suba bokk na ci liy dimbali askor te bu nu nangu ku la yàqal sa nett ëllëg ngir njariñal boppam te lu mu mën a doon mujj gaa ci ëpp solo te lépp lu ñu lay laaj ëllëg xamal leen xamal ni nga koy sàmm tey ñi nga fi wuutukat ñi ngi waxtaane ni ñu yore woon réew mi ak ni ñu ko ñàkk bul nangu ñu gën daa rafet la way adduna doyloo fi nekk waaye lu doy amu fi ndax adduna ci boppam doyul bàyyil xene bàyyil xel ci ne lépp du joge ci loxo jaar ci jaar ci say loxo di dem ci yenen loxo jaay ci ab sañ-sañ du nité ta nga gëna fonk ta gëna diglu ñi lay wax dëgg ta di ca sét yalla seen borom ndax ñoñu ñoy ñu bëgg réew mi ñi ci dess seen njariñ lañu and ak yow dañu lay ba ma ba nga dugg ci biir kàmb ñu wëlbatiku ta loolu yaa ngi koy xamé ci ñi la wër tey ñu ci bari ñoy ñe waroon ki nga wootu démb ta su seen pexe joyon démb doo toog fi nga toog tey bàyyi ci xel bu baax bàyyi xel bu baax ci ñuy yëkkati seen kàddu ci réew mi ñëpp bokkuñu yem bi ngay jot ci réew mi amoon nga duggin wu rafet liggéey nga fi itam du ñëpp gis kenn mënu koo weddi kon bul nangu ku xajamal ku xajamal sa liggéey buur xeex jigu ko ndax su gañee du bett kenn te suñu ko gañee mu am gàcc rawatina sa jabootu bopp ku la war a wet bul doyee fi kanamam ba mu di la yeb jamono yii nga toll nag ku lay wax te bañ laa jay mooy sab soppe bu nangu ku lay xeetal mukk ci loo xam ne du la ci dimbali te su fitna yawoo ci réew mi di nga ca wéet ñoo ñu la wër naan na dañ laa yab su fitna yawoo ci réew mi soo gisoo soo geesoo doo ci gis kenn te fitna kenn du ko xeeb buur yu bari xeeb fitnaa leen tàggaleeg seen nguur nguur borom bi nee na maa koy jox ku ma soob moo tax bi nga ciy jot mu yomboon sunu borom moo la ko joxoon waaye nee na maa koy xañ ku ma soob te su boobaa loo ca ngoy ngoy du la ko tey ñàkk ndax daf koy nocc la wax nee na dama koy nocc nguur ga su ma ci ki ko joxoon su jeexagul nag su fekkee nguur gi jeexagul nag kenn mënula koo xañ waaye lu daawul xew su xewee bul fénati xalaat ci bu baax te xalaate ci ak sago te nga bàyyi xel bu baax ci ñi la wër du yow yàlla leen yitteel fi nga toog moo leen yitteel ku la fi wuutu soo ëllëgee ñu def ko nu raw ni ñu la def bàyyi ci xel bu baax xel muy jariñe nag mën naa jóge fu ne bul xeeb kenn bul xeeb mbenn xel itam yaxfirullahu li wa lakum voilà tey nag laayet bi gis ngeen ko gat sa gat sa billaahi wallaahi tallaahi bu saalum tàmpi li mu lal bu juboon yéen ñëpp lay rey ba taxaw seen kaw daaneel leen yéen ñëpp joggi seen kaw ba pare jàll dem yoonam barki alxuraan al karim gis nga génn mbaalu nii baaluwul pour baalu de daa baalu parce que am na yu mu mënta digérer te song na ñu am crédit dafa bippe ñu am crédit mais bu pexeem sotti woon ni mu def papam ak yaayam ak seen waa kër la leen di def faalewul kenn moppam rek ko ñor moo yor Sénégal moo ko pañe di ko wëndeel gas nga na médecin ba ne woon aji saar mii ba ma xoolee ndawam dajeeku na bu yàgga yàgga yàgga yàgga mel ni hélice hélicoptère bu yagga yagga yagga yagga yagga yagga lan daje ko noonu la len def dina len ray yeb yeb yeb yeb yeb taxaw fële ne mom la mo daanel Sénégal ci ay fraction de seconde kon ki bu taxawé ne mu ngi bàllu xaar len ko mat sa ak retour mu ngi ñëwaat <laughs> bu ñëwaaté ngeen xam aja ñun li lañ wax ñun